jërë ngeen jëf guddi gàmmu gi ñu génn l'observateur xëy nañu ci dugalaat bu baax a baax guddig leer la ko tuddee boole cekkit solo dàllam dugg ci réew mi dëkkub diine bu ne mu demal ñu fa ngir yeggee ñun nañ fa doon màggalee gàmmu gi le quotidien feelu ko ba di ñu wax ay ñaan yu ñaan ci gàmmu gi ngir jàmm ci réew mi ak ay kàddu yu ministre intérieur Antoine Félix Diome yu mu yëkkati ci cérémonie officielle bu gàmmu gi ca Tivaouane jëmoon ci di wax ci mi am di Antoine Félix Diome ma fay xam le ne bu Sénégal dana def kemtalaay kàttanam ngir waggat ci liberté de culte nit ñi défendre leen ni mu ware tribune bi ne ne ministre intérieur Antoine Diome mi ngi dànkaafu ñi bëgg xajamal diine l'islam ci réew mi ak tarixe yi ci réew mi musée bu ñu war def ci réew mi jagleel ko Seydina Mohamed wa point actu nee nañu ministre intérieur moo ko yëgle ci cérémonie officielle bu gàmmu gi ca Tiwaawoon Medina Baye Anne lu jëm ci li ñu ne kuy bu séntu ab lëngoo diggam moom Aly Ngouille Ndiaye ak Mahammed Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye nee na lu mën a nekk la ñoo ngi ci waxtaan bu baax a baax ngir seet nan la mën a taxawale ab coalition ci élection présidentielle 2024 bés bi le jour mel ne ko naan ñu Aly du ragal li mu bind ci xëtamu njëkk moom yéenekaay bi mooy Aly Ngouille ma ngay foncé muy ci candidature bi di ci coalition bi mu bëgg a taxawal diggam ak Mahammed bëgg ba siiwal ko leeral na ci li ko tax bëgg bokk ci présidentielle yi 2024 yi anki dina ñu war a tàmbalee waxtaane tey ji moom la journal Vox Populi xëy di waxtaane ba di ñu xamal ne gaañ tey ji ci la leen direction générale des élections di jébbal këyit yu ñu def ni ñu war a doxalee parrainage yi la nañu tey ci la teg gaañ ci yoon yu ñuy wutee ay parrainage convoqué nañu ñi bëgg a doon candidat candidat dinañ leen fa leeral it ni mbir yi war a demee ñu dem ci journal Les Échos maire bu Gueule Tapée di Abdou Aziz Paye journal bi nee nañu am na sendas ndaw suñu naan Aïssatou Nguébane moom femme bi moo porté plainte maire bi ci division investigation criminelle ak chantage ak njublang moom la koy tuumal mu di tuuma yooyu Les Échos nee nañu maire bi di Abdou Aziz Paye weddi na ko ba tëdd ca naaj wa nee na dara ci amul li am ca Dakar dem dikk ku conseil technique am ma nga ca dil ba muy ki gañe marché ba di ay liggéeykatam di chef de division Dakar dem dikk bi ñu santoon mu nettoyé dépôt ba jële fa épave ñoom ñëpp sursoi nee nañu yoon teg na leen loxo seeni yoxoog seeni gët ci journal Libération mbëkk mi Barça wala Barsaq xewit weeg loraange yi muy jur journal bi nee nañu ma ngay wéy ba léegi am na ñetti gaal yu bëggoon a départ jóge fii dem bitim réew yi ñu jàpp benn bi ñoo ngi ko jàppee ca Kafountine beneen ñu jàppee ko ca Malika ba ca des ñoo ngi ko jàppee ca Ndar Babou Sène consul général bu Sénégal ca Dakhla ga ca Maroc di ñu xamal ci bi ne ci diggante benn